arbitre baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ wala boog fii laay taxaw du ma taxaw fii danañu pil dañuy pil ku gagné eh, Fourrière gagné gum na Fourrière gagné na ca na taxawaay ba Fourrière moo ñu woon ginnaaw armée bu ngëwël la nu jaakaar lool Eh, arbitre baa ngi wax ñoom nee na ko kaay taxawee nii baa ngi laaj ay jugeem Fourrière taxaw bul yàkkamti arbitre bi laaj na arbitre bu ngeen pare na laaj na Fourrière pare na arbitre sifflé na mbokk grand combat baa ngi noonu Fourrière arbitre bu ngeen il est 19h52 Fourrière bi mu fi mujj. digganteem ak Baye Mandione Junior la woon armée bu ngewel bi fi mujj digganteem ak la woon armée bu ngewel bi fi mujj ndam la fi jëlee Fourrière bi fi jógee defet la fi jógee digganteem ak Baye Mandione ñu xeex bu metti bëre bëre bu metti mu ñàkk armée bu ngewel bi fi jógee digganteem ak Hercule bëre nañu bëre bu mu daan waaye ñoom ñaar mbokk yi arbitre may ñu wàccal waaw wàccal li naan wàccal ci suuf Fourrière taxaw Fourrière daf koo bëgg a bouger parce que xam na ne arme ngeen dafa diis xam na ne dafa diis jàppante nañ tegante nañ bopp dañoo bëgg a xeex Fourrière door touché na ko Fourrière waaw waaw Fourrière ni mu arrêté combat baax na arme ngeen doos na góor ci waat waaye dalul Fourrière Armée bu moo nga bëgg da koo bëgg a dóor Fourrière Armée bu Ngewel Fourrière a ngay déplacé wu Fourrière Armée bu nañ jàppante nañ bu Ngewel ngay bu Ngewel abi moo ñu woon ginnaaw booy da nga naan Ama ah, doole ndax moo ëpp volume eh, loolu du yoon Fourrière Ama bu Nguéweul Ama bu waaye arbitre bee ma bu ma ne ko

jàppante nañ ku nekk yaa ngi déglu sa morom. Fourrière armée bu Ngéwél. abit bi àtte na armée bu ngewele ngay dem ca ca seize ba gàllaaje da amel ni da koy sonal waaye mbokk yi Fourrière takkul dara Fourrière takkul dara mais lan mooy Fourrière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

arbitre pousse suñu kanam eh, gis nga Fourrière am bu ngewal dañuy xeex jàpp dóor bàyyi Fourrière jàpp na armée bu ngewal jàpp na Fourrière armée bu ngewal ku ci nekk am nga loxo ci ngemb Fourrière Armé bu Ngewel Fourrière Armé bu Ngewel Mongo lu mu ko bëgg a def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 doole ah da ngay bàyyi. xam-xamu lamb la. armé xam-xam baa ngay bëgg a ñëw de. daa ma seet daal yàgg na métti na moom. armé bu Ngéwél Fourrière xale yaa ngay bëree. daa ma seet moo dee technique bi. sonn nga de. bal bal bi li ma dee technique bi. sonn nga. ñoom ñaar ku ci nekk am nga ñaari loxo ci ngemb. armée bu Ngéwél Fourrière armée bu Ngéwél Fourrière